Serigne Abdou Latif Mbacke Serigne Abdou Latif Mbacke mi ngi feeñ jamono ci atu 1919 ci dëkk bii nag di Mbacke Bawal ci dëkk bii nag di Mbacke Bawal nag la feeñee jamono ci atu 1919 di doomu Maam Moor Jaara Mbacke ak ku ñuy wax soxna Faati Moor Touré moom nag amul kenn nag ku mu bokkal soxna Faati Moor Touré ak kii di Maam Moor Jaara benn doom la ci soxna Faati Moor Touré ak kii di Maam Moor Jaara waaye nag am na ñu bokkal soxna Faati Moor Touré nag te bokkuñu Maam Moor Jaara muy ku ñuy wax Serigne Ibrahima Mbacke ibnu soxna Faati Moor Touré ibnu Serigne Afia Mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ Moodu Abdoulaye Mbàkke ibnu soxna Faati Moor Ture ibnu sëriñ Aafiya Mbàkke ak ku ñuy wax soxna Faale Mbàkke bintu soxna Faati Moor Ture bintu sëriñ Aafiya Mbàkke ak ku ñuy wax soxna Abi Mbàkke bintu soxna Faati Moor Ture bintu sëriñ Aafiya Mbàkke sëriñ Abdou Latif Mbàkke nag ñeent nag la bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor muy sëriñ Ibrahima Mbàkke doomu sëriñ Aafiya Mbàkke la sëriñ Moodu Abdoulaye Mbàkke doomu sëriñ Aafiya Mbàkke la soxna Faali Mbàkke doomu sëriñ Aafiya Mbàkke la ak soxna Abi Mbàkke Roqiya Mbàkke la bi matee dal alxuraanul karim moom sëriñ Abdou Latif Mbàkke waajuram sëriñ Touba Xaadim Rasul moo ko dalal alxuraanul karim ci njaareem ginnaaw bi nag lañ ko jébbal ku ñuy wax sëriñ ñang ci dëkk bu ñuy wax xulle ginnaaw sëriñ ñang nag ci dëkk bu ñuy wax xulle jaar na itim nag ci loxoy sëriñ Moor Mbay Siise ci njaareem ginnaaw sëriñ Moor Mbay Siise ci njaareem jaar na itim ci loxoy sëriñ Muhammadu Dem ci njaareem ginnaaw loxo sëriñ Muhammadu Dem ci njaareem jaar na nag ci loxoy sëriñ Muhammadu Jóob Dagana ak nag ci loxoy sëriñ Abibu Mbàkke imaam ñii nag ñoo ko séq nag ci wàllum njàng muy alxuraanul karim nag ak lii nag di xam-xam mu nekk itam nag ku géejoo géeju ci wàllum alxuraanul karim nag ak lii nag di xam-xam ginnaaw bu mu jeexalee am njàng moom sëriñ Abdou Latif ma Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasul moo ko jël nag yóbbu ko nag ci dëkk bii nag di mbul ngir jox ko nag daaree alxuraan ji nekkoon foofu nag ci dëkk boobu nag di mbul ci loxo yi nag ma Cheikh dul Bachir nag la nekk ba ci atum 1946 ma Mamadul Bachir nag doo ko faa jëlee yóbbu ko nag ci kër nijaayam wala ci dëkkum nijaayam bu ñuy wax lappe lappe nag fa la nekk nekk di yar di jàng ak di jàngale waaye nag laataa muy jóge nag ci dëkk boobu nag mbul ci daara jooju ko ma cheikh mamadul basir mbàkke joxoon ngir muy jàngalkat lenn nag ci njabootuk cheikh mamadul basir gi ak doomi mag yi nga xam ne nii kat jébbaloon nañ ko ma cheikh mamadul basir mbakke ñu man cee ràññee nag njabootuk cheikh mamadul basir muy ku ñu wax sëriñ moodu abdoulaye mbàkke ibnu cheikh mamadul basir mbàkke sëriñ moustapha basiru mbàkke ibnu cheikh mamadul basir mbàkke sëriñ basiru mbàkke baara moom cheikh mamadul lamin baara mbàkke moom xaadim rasul sëriñ aboo mbàkke moom sëriñ Touba moom xaadim rasuul sëriñ Basiiru Moodu Moor ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñoom jàngal nag ci dëkk boobu nag dimbul dëkk boobu nag dimbul mbul sax lañ ko taxawale kër boole ko soxna suñuy wax soxna Rabi Diop soxna Rabi Diop ñuy sax moom meññi nag njabootug sëriñ Abdou Latif Mbàkke nag gi mag ñu mën cee ràññee nag soxna Faati Mbàkke Tiwaawoon min jébbaloon Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke Basiiru ak ku ñuy wax soxna Moomi Mbàkke lappee ak ku ñuy wax soxna Anta Mbàkke mu wéy nag nekk nag ci loxoy Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke nag di jàngale nag ci daaray Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke nag ci dëkk boobu nag di atum 1946 ci atum 1946 boobu nag la ko Cheikh Mamadou Bassir Mbacke gërëm yabal ko nag mu delluwaat nag ci ay mbokkam rawatina nag ci dëkkub nijaayam bii nañu tudda lappee daara jooju nag sëriñ Abibu Mbacke imaam nag moo fa wuutu sëriñ Abdou Latif Mbacke muy dem nag ci dëkk boobu nag di lappe Cheikh Mamadou Bassir Mbacke nu sëriñ Touba Xaadim Rasul taalibeem bu wax nag sëriñ Malick Loum nag la yónni woon nag ci dëkk boobu nag di lappee ci nijaay yi nag sëriñ Abdou Mbàkke la bëgg nag mu dellusiwaat nag ci ay kër nijaayam ngir man fee nekk bëgg na itam nag su ñëwee nag ñu jàppale ko nag ci suufa te teete ko te dimbali ko ngir jëmmam ginnaaw bu sëriñ Malick Loum nag ñëwee nag ci lappe ka magoon nag ci dëkk ba ci jamono jooju bokk nag ci njabootu Touré gi mooy ku ñuy wax sëriñ Makhoudia Touré sëriñ Makhoudia Touré mii nag la sëriñ Malick Loum nag jébbaloon lettre bi ngir di ko wax na kàdduy Cheikh ma mu dul fekkoon itam yeneen yi nag sëriñ Abdou Latif Mbàkke ñu mën caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Modou Asta Touré sëriñ Modou Sala Touré sëriñ Xayaar Touré ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ca magi dëkk ba ginnaaw bu sëriñ Malick Loum nag delsiwaatee nag ci dëkk bii nag di mbul ba jotal nag Cheikh Mamadou mu jële nag ci dëkk boobu nag di lappe Cheikh Mamadou Basir nag waajal na nag kii di sëriñ Abdou ngir yabal ko nag mu dem nag ci lappe lappe googu nag ginnaaw ba mu fa demee taaliba ya fa njëkk a jébbulu nag ci moom mooy ku ñuy wax sëriñ Cheikh Fall ak ku ñuy wax sëriñ Modou Kaba ginnaaw bi nag la yeneen taalibe yi nag tàmbalee ñëw laataa muy dem lappe nag Cheikh na ko doomam ju ñuy wax soxna Faati Kiné Mbàkke soxna Faati Mbacke mii sax moom meññi nag ki nekk xalifab sëriñ Abdou Latif Mbacke di sëriñ Cheikh Lappe mi mu fayee nag waajuróom wa Xaadim Rasuul mu wéy nag nekk Lappe nag taxawal fa nag daaray alxuraan di yar di jàng di tarbiya comme nag ni ko yoonu murid nag baaxoo nag di defee ba tax na itam nag ci dëkk boobu nag di Lappe kilifa yu bare bare itam nag jébbaloon nañ ko fa nag seenu njaboot ngir itam nag alxuraan ji nekk ci moom ak yar bi nekk ci moom ak taxawaayam nag ci yoonu murid ngir nag mën koo def nag ci seen njaboot googu nag ñu ko jébbal nag moom sëriñ Abdou Latif Mbacke Bassirou Mbacke moom Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke ndax bi muy jóge nag ci dëkk boobu nag di Mbul Cheikh Mamadou Bassir Mbacke ibnu Xaadim Rasul da ko boole woo nag turandoom woowu mu yóbbaale ko nag ci dëkk boobu nag di Lappe ak ku ñuy wax nag sëriñ Mammoor Mbacke moom sëriñ Moodu Mahmoud Mbacke moom Mammoor Jaara ak kii di sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke moom Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci kilifa yi yoo xam ne itam nag jaar nañ ci dëkk boobu nag di Lappe Lappe googu nag la wéy nekk fa di yar di fa taxawal ba ci atum 1956 lappe googu sax laataa mu fay jógee nag ci atum 1956 mbooleem njabootu xaadim rasuul gi fekk nañ ko nag ci dëkk boobu nag di lappee ñu man cee ràññee nag cheikh mamadul faadal mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasuul cheikh dul basir mbàkke moom sëriñ tubaa xaadim rasuul mi ko yebal nag ci dëkk boobu nag di lappee sëriñ tubaa cheikh abdoulahat mbàkke sëriñ tubaa cheikh abdou xaadir mbàkke sëriñ tubaa cheikh saalihu mbàkke cheikh murtada mbàkke ibnu xaadim rasuul sëriñ abdou samad mbàkke ibnu xaadim ak ganeen njabootu xaadim rasool gépp nag njabootu xaadim rasool gu jigéen gi itam nag kasaalika soxna moomi mbàkke bintu sëriñ tubaa xaadim rasool bu la nag ba tax na nag ci lappe googu ñëw na fa ay yooni yoon nag seet si sëriñ abdou latif mbàkke kii di sëriñ abdou latif mbàkke tudde na soxna moomi natu mbàkke moomu doom soxna may mu natu mbàkke bintu sëriñ tubaa xaadim rasool ku amoon ak jaxasoo la nag ak kii di sëriñ abdou latif mbàkke loolu nag tax na lappe googu nag magam yooyu yëpp itam nag fekk nañ ko fa lappe googu nag la wéy nekk nag ba ci atum 19 1956 ci at 1956 nag la jóge nag ci dëkk boobu nag di lappee taxawal nag geneen daara muy daara nag ju nekk nag ci daaru salaam jigal ku ñuy wax sëriñ moxtaar jigal nag moo ko dogaloon foofu nag suufa mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu nag di daaru salaam jigal yóbbaale fa nag doomam ji nag di sëriñ Mamor mbakke lappee moom sëriñ Moodu Mahmoud mbakke moom Mamor Jaara ak soxnaam suñuy wax nag soxna Mbeen Mbàkke bintu sëriñ Omar Mbàkke Gelongal soxna Mbeen Mbàkke mii sax moom meññ nag kam faye woon waajuramam wa di sëriñ Mamor Mbàkke moom sëriñ Abdou Latif Mbàkke ak beneen soxnaam nag bu ñuy wax soxna Mariama Touré soxna Mariama Touré mii nag moom meññi nag kam fayee nag xaritam ba di sëriñ Abdou Lakram Mbàkke moom sëriñ Afiya Mbàkke ñii nag la nekkaloon nag ci dëkk boobu nag di Daaru Salaam Njigal mu wéy nag nekk nag Daaru Salaam Njigal ndëkk ak Lappe taxawal na fa sax daara ju màkk ginnaaw Daaru Salaam Njigal nag la dem nag ci dëkk bu ñuy wax caareen ci taalibe waajuram bu ñuy wax nag sëriñ Mouhamadan Ndiaye sëriñ Mouhamadan Ndiaye mii nag ci taalibe yi yaakaaroon Maam Moor Jaara la ba mu demee nag ci dëkk boobu nag di caareen moom sëriñ Abdou Latif Mbàkke ci kër sëriñ Mahmoudoon Ndiaye mii nag la nekkoon di fa bay am fa itim nag suuf waaye menn at dong nag la fa bay nag ci dëkk boobu nag di caareen caareen googu nag ba nëga ni nag suuf soosu mu fa amoon doomam ji nag di sëriñ fàllu mbàkke di kam faye nag magam ja cheikh mamadul faadal mbàkke ibnu xaadim rasuul ginnaaw caareen nag la dem itim nag ci dëkk bi nag di muslaaj muslaaj googu itim nag suuf sam fa amoon di fa bay ginnaaw ba mu fa bàyyi koo nag la fa bàyyi nag rakkam ji mu bokkal benn waajur wu jigéen di sëriñ muudu abdoulaye mbàkke moom sëriñ aafiya mbàkke moom mamor anta sali mbàkke ginnaaw muslaaj nag la dem ci dëkk bu ñuy wax bangaaj sàmbu bangaaj sàmm googu itam nag daana fa bay ndax amoon na fa suuf ak dëkk bu ñuy wax nag bétoo bétoo itam nag na fa bay itam amoon na fa suuf tool yam amoon nag ci bétoo wala daara jam amoon nag ci bétoo doomam ji nag di sëriñ jiili mbàkke di kim faye sëriñ abdu xaadir mbàkke moo féete nag ci daara ja jamono jii ginnaaw bétoo itam nag daana bay nag ci dëkkub sëriñ abdoulaye jaane mi bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ touba xaadim rasuul di njaane nekk itam nag ci wetu touba faal ba ci atum 1977 mu delsiwaat nag ci dëkk bii nag bi mu ñëwee mbàkke bawal nag mi ngi doon baye fii ñuy wax ñànka ndax ñànka nag ci cosaan nag maam Moor Jaara nag moo ko gor ginnaaw bu mu nekkee nag di bay nag ci suuf soosu nag di ñànka la ko doomam ji gis nag di sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Baara Xuraja moom maam Jaara di ko xamal nag su sii ngay bay nag dëgg la waaye su ma sañoon nag nga ñëw nag ci sa dëkku waajur bii nag wala sa suufu waajur bii di saam ndax ñun kat ay sët dong la duñ fi nekk nag di yilif suuf soo xam ne nii kat suñuy waajur ñi ngi fii kon nag su ma sañoon nag nga ñëw nag sañcaat nag sa kër waajur wii nag nekk fi loolu moo waral nag sëñ Abdou Latif Mbacke Mbàkke moom Mamor Jaara topp nag ndigalul doomam jooju nag di sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Baara Xuréja ci atum 1976 ñëw nag sancaat nag kërug waajuram googu di saamuk sëriñ Abdou Latif Mbàkke lii nag moo jotale nag dëkk boobu nag ci sëriñ Abdou Latif Mbàkke saam googu nag bi fi ñëwee nag ci atum 1977 doomam ji nag ñuy wooye sëriñ Mamor Mbàkke Lappe te magam ja nag di sëriñ Muudu Mahmoud Mbàkke moom Mamor Jaara meññi ko sëriñ Mamor Mbàkke Lappe moomu nag la bàyyee nag daara ji wala moo nekkoon nag jëwriñu donga yi ci dëkk boobu nag saam mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu nag di saam di saamu sëriñ Abdou Latif Mbacke ci saam googu sax lañ ko denc ginnaw bu mu génnee àdduna ci atum 1994 saam googu sax ginnaaw bu mu fi nekkee ci yar boobu nag mu daa yar ak tarbiya boobu nag mu daa def jikko jooju nag sëriñ Abdou Latif Mbacke nag yore woon nag ci dëkk boobu nag di saam ak melokaan goowu nag mu melo woon loolu itam nag tax na kii di sëriñ Taala Jaxate nag defal ko nag ay way di ñu wax nag jikkoy sëriñ Abdou Latif Mbacke melokaanu sëriñ Abdou ak dëkk boobu nag di saam naka la ci sëriñ Abdou Latif Mbacke jote ak lan moo am saam mi ngay ñaan nag ci darajay ay magam muy njabootu xaadim rasuul gi kóllëre nag guñ amoon nag sëriñ Abdou mbakkee Mbàkke wayu yaatu daal nag la ko taalibeem bii defal nag di sëriñ Taala Jaxate ñu teewlu ko bismillahi réew mi déglu leen ma ma way si Cheikh Abdou Latif al yawm déglul ma wax la tuuti ci liggéeyam daa wayi koog la mënta jeexal géejam waaye jëfam danaa ci waxtaan tuuti loo xam ne kenn du dégg am ci guute moo taala yow kon tee ku bay dugub mu ñor aji duniya yeema ko haddunay kafal dalay waaja duma man takku saan gañuro be cheikh la laa bàyyi woon hadduna gën koo dëdd wolof yi nee na tukki yàgg da caa baax ne kon ma jooyaat cheikhi abdou ak baax lawet na yaatu na te am na am xel um masa toogal wax la yow luy baaxal amul kañaan amul li bañ moo laa biir luy bëgg handi coow mu daal di koy suur bëggoon na mbokkam bëgg na ab jàmbur xàmmeewu leen pëlëg wolof ba ay naar muñoon na lool jàmbaar la woon juyeemu ku mel ne Cheikh Abdou amul ci Sénégal baa xam ji dañ na réew mi mooy xabu rijaal melaw sang sa Bàmba lim ci xoq moo ma xamal Cheikh Abdou nee ma xaqu njàmbaaruk xaliyu ga ak jikoy xamar Cheikh Abdou boole kook melaw Ousmane Oyor gëm nga Ababakar gëmoon yónneen ba Cheikh Abdou moo ko gëm ci yoonu Bàmba képp ku seex Bàmba jur jëfal na la ak jigéen la yamale fonk nala la kër gu mu dem ku nekk naan saam Abdou ku nekk foog na yaa ko moom cey Abdou Cheikh Abdou nag boo ko jiwee mu ree la te boole kook lawet kuréer la teg la ci yoonu Cheikh Bamba Mbacke wax la jikoy Serigne Bassirou Mbacke Cheikh mi li mu liggéey na woyu tey nag li des mooy toppatoo ndigal yi te boole xol yi farlu xam dogal yi kon nañoo xam àdduna ak waram yi nu dëddu àdduna te bàyyi may Cheikh Abdou nag ku ci moom doo sànku ku koy tuddoo te royuloo ko sànku ku yàlla xiir nga gëm Serigne Abdou Latif yow mastidaa du nosu bi kenn du la liif déglul ma wax la tuuti nag ci mbooti saam nga xam ne Cheikh Abdou Latif dondu na maam saam jii di Jaara moo ko sancoon jàkka ji nag cheikh fadlu moo ko fetiñoon cheikh muudu taaw ba daa di ñëw tabax ko ba mu desee cheikh mbàkke jóg yëggale cheikh abdu dem na bàyyi noo cheikh mbàkke yiir na njaboot gi wër na leen nepp sànk yàlla na ko buur yàlla di yeen lum attan te may ko fan wu gudd koom wér kàttan cheikh abdu nag yàlla na dem daru salaam njaboot gi mucc wér ta xam xusnal xitaam ci darajey muhammadu rasulu ak darajey cheikhul xadim mi nu wóolu ci doomam ji seexil muhammadul aminu ak darajay basiru neel amina ci darajay sun cheikh ba habdum dër ba ak darajay habdul ahad mam bamba ci darajay sangam ba habdu samadi ak darajay cheikh ibram ba kam hamdi ci darajay saalihu wa sohaybu ak darajay cheikh murtada maarabu ci darajay imam ja habdul xaadir ak darajay jigéen ja ji ba am mu nekk nag yéeme moom doomu maam moor jaara bi nekk itam nag bëgg ay magam ku fonk itam ay magam ba tax na itam nag magam yooyu itam nag delloon nañ ko lëre googu nag ak fonk googu mu leen fonkoon magam cheikh mamadul moustapha mbàkke ku jaxasoo woon ak rakkam ji la nag di sëriñ abdou latif mbàkke magam cheikh mamadul faadal mbàkke ku jaxasoo woon ak rakkam ji la nag di sëriñ abdou latif mbàkke ba tax na sëriñ abdou latif mbàkke tudd na doom cheikh mamadul faadal mbàkke magam cheikh mamadul bachir mbàkke lu ëpp nag ci dunduk sëriñ abdou latif mbàkke magam cheikh mamadul bachir mbakke nag moo ko ci taxaw moo ko yóbbu nag ci dëkk bële nag di lappee moo ko yóbbu woon itam nag ci tuubaa mbul fob na doomam itam nag jébbal ko Mbacke moom Cheikh Mamadou Bachir Mbacke ba tax na soxna Faati Kiné Mbacke sax moom meññi ki nekk xalifab sëriñ Abdou Latif di sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Latif Mbacke loolu itam nag tax na itam nag tudd na doom Cheikh Mamadou Bachir Mbacke magam Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke itam nag ku jaxasoo moom la magam sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad ñoom ñaar moom dañoo dépassé woon mag ak rakk na nag kii di sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke defoon na conseil principal am nag kii di sëriñ Abdou Latif Mbacke ba tax na itam néew na lool mu tëdd nag te conseiller ndax kat doomu maam Mor bii kat doomu xaadim rasuul bii nag defoon na ko conseiller principal ba tax na itam nag ak jaxasoo amoon nañ ko lool saam googa itam nag sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke itam fekk na ko fa ay yooni yooni yoon ngir nag di ko seet si sëriñ Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacke ku jaxasoo woon nag sëriñ Abdou Latif Mbacke la ba tax na itam nag kii di sëriñ Abdou Latif Mbacke nag tudd na doom sëriñ Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacke ndax sëriñ Jili Mbacke moom sëriñ Abdou Latif Mbacke mi ngi fi te sëriñ Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacke la ko tuddee ba tax na itam nag sëriñ Abdou Latif Mbacke faboon na doom wax soxna Moomi Mbàkke Lappe jébbaloon ko sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke na ngir ak rakkam ji la nag di sëriñ ba tax na itim nag sëriñ Abdou Latif Mbàkke foboon na doom ji mu bu Mbàkke itim kasaalika ku jaxasoo woon ak sëriñ Abdou Latif Mbàkke la ba na bi sëriñ Abdou Latif Mbàkke nag delsiwaatee ci dëkk bu sell bii nag di Touba ci wetam nag la nekkoon nag di fa bay muy ñànka sëriñ Abdou Samad Mbàkke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasuul ku jaxasoo woon nag sëriñ Abdou Latif Mbacke la ba tax na sëriñ Abdou Latif Mbacke nag tudde na sëriñ Abdou Samad Mbacke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasul sëriñ Abdou Samad Mbacke itam nag fépp fu sëriñ Abdou Latif Mbacke nekk itam fekk na ko fa ndax ak kóllëre nag guñ amoon ñoom ñaar Cheikh Mourtada Mbacke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasul ku jaxasoo woon nag sëriñ Abdou Latif Mbacke la ba tax na bi sëriñ Abdou Latif Mbacke génnee àdduna ci atum 1994 Cheikh Mourtada Mbacke ibnu Xaadim Rasul moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag ci péncum boppam di saamu sëriñ Abdou Latif Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul itam ba tey ci relation bi mu am ak sëriñ Abdou Latif Mbàkke doomam ju ñuy wax sëriñ Seexuna Mbàkke jébbaloon na ko nag sëriñ Abdou Latif Mbàkke itam ngir mu yar ko ganeen njaboot nag gi mu bokkal Xaadim Rasuul nag muy njaboot gu jigéen gi ñoom ñëpp itam amoon nag ñoom kóllëre ñi ko ci magoon ñëpp itam nag mag la leen jàppee ñim ci magoon itam nag rakk la leen jàppee njaboot gi mu bokkal Maam Moor Jaara Mbàkke ñëpp moom Maam Moor Jaara Mbàkke nag la leen di xoole ndax mbooleem njaboot gi mu bokkal Maam Moor Jaara itam ñëpp ay magam lañ kenn rek la mag nag ci mbooleem njabootug xafoor mbàkke ibnu mammoor jaara ganeen njabootug mammoor jaara gu jigéen gi ñépp itam nag mag la leen defoon ndax mammoor jaara nag la leen doon xoolee loolu itam nag tax na nag waajuram woowu nag di mammoor jaara kiri sëriñ abdou latif mbàkke itam nag tudde woon na ko doom ndax mammoor jaara mbàkke moom sëriñ abdou latif mbàkke mi ngi fi woon te waajuram mammoor jaara mbàkke la ko fayee sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ko amoon nag ak jaxasoo la nag ak sëriñ abdou latif mbàkke sëriñ moodu faati xari mbàkke moom sëriñ masamba mbàkke ko Latif Mbàkke ba tey nag jaxasoo gi nga xam ne ni sëriñ Abdou Latif Mbàkke nag amoon na ko ak njabootu xaadim rasuul gi ñu man cee ràññee nag doomu sëriñ Basiiru Mbàkke bii di sëriñ Moustapha Mbàkke Basiiru ko amoon ak jaxasoo la nag ak sëriñ Abdou Latif Mbàkke ba tey nag relation boobu sëriñ Abdou Latif Mbàkke nag séqoo nag sëriñ Moustapha Mbàkke Basiiru sëriñ Abdou Mbàkke nag foboon na doomam ju ñuy wax soxna Maam Faati Mbàkke Tiwaawoon yébbaloon ko sëriñ Moustapha na ngir mu dëkkoo ko ba tey nag sëriñ Abdou Latif Mbàkke jàngal na nag sëriñ Moustapha Mbàkke Basiiru ci ñaari jëmm yooyu nag jaxasoogu yaatoo yaatu nag moo nekkoon ci seen biir ba tey nag ci jaxasoogu sëriñ Abdou Latif nag amoon ak njabootu xaadim rasool gi njabootam gu jigéen gi di bintu sëriñ Abdou Latif Mbacke yi ñu ci baree baree bari nag njabootu xaadim rasool gi la leen féetale woon soxna Libaas Mbacke doomu Cheikh Mamadou Lamine Baara bi di sëriñ Moustahine Mbacke la ko jébbaloon soxna maam Boussa Mbacke sëriñ Cheikh Mbacke Kajoor la ko jébbaloon doomam ji di soxna maam Faati Mbacke sëriñ Lamine Lo moom sëriñ Daam Abdourahmane Lo nag la ko jébbaloon doomam ji nag di soxna Maymunatu Mbacke sëriñ sëriñ Mbacke Astu moom Daaru Salaam nag la ko jébbaloon ba tax na sax kii di sëriñ Mbacke Astu tudde na sëriñ Abdou Latif Mbacke doom doomam jii di soxna Anta Mbacke sëriñ Sam Mbacke Astu loo nag la ko jébbaloon ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñum jébbaloon nag ak njabootam ko amoon ak jaxasoo la nag ak sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke xalifa général des Mourides ba tax na itam nag njabootuk sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke ñu ci baree baree baree bare nag ci loxoy sëriñ Abdou Latif Mbacke nag la ñu yaroo wala jaar nañ nag ci loxoy sëriñ Abdou Latif Mbacke ñu man cee ràññe sëriñ Moustapha Mbacke ibnu sëriñ Cheikh Mati Lay moom itam nag jaar na soxna nag ci dëkk boobu nag di lappee ci loxoy sëriñ Abdou Latif Mbàkke ñaari doomi sëriñ Cheikh Mati Lay mii di soxna Assu Gaawaan Mbàkke ak sëriñ Abo Mbàkke moom sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke jaar nañ nag ci loxoy sëriñ Abdou Latif Mbàkke ba tey itam nag ci diggante sëriñ Abdou Latif Mbàkke ak sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke suuf sii nag di kër ngànd wala dëkk bii nag di kër ngànd di dëkkub sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke ci suufu lappee nag la bokkoon ginnaaw bu sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke nag jógee Njàmbur la ñëwoon nag seet si nag waajuróom woowu nag di sëriñ Abdou Latif Mbàkke ginnaaw bi nag la sëriñ Abdou Latif Mbàkke waxtaan nag ak ay nijaayam di sëriñ ma xujja ture di ko wax ne kat sama doom ji nag di sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke nag dafa soxla suufa sëriñ ma xujja Touré moomu nag di nijaayu sëriñ Abdou Latif Mbàkke moo dogal suuf nag sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke ci suuf soosu nag di lappe muy kër Ngànna relation bu yaatoo yaatu nag la ñaari jëmm yooyu nag am doomu Mamor Jaara bii ñuy wax sëriñ Ismaïla Mbàkke moom Mamor Jaara foboon na doom ji ñuy wax sëriñ Abdou Lahad Mbàkke jébbaloon ko nag sëriñ Abdou Latif Mbàkke itam ngir mu yar ko sëriñ Cheikh Atta Mbàkke moom Mamor Jaara foboon na ñeenti doomam nag jébbal sëriñ Abdou Latif Mbàkke ngir itim nag sëriñ Abdou Latif Mbacke yar leen kon nag ko ay magam nag fonkoon la ndax kat jikko ji nekk ci moom lañ bëggoon nag seenu njaboot yor ko sëriñ Abdou Lakram Mbacke moom sëriñ Afia Mbacke foboon na doomam ju ñuy wax sëriñ Cheikhouna Mbacke moo nekkoon ab taawam jébbaloon ko nag sëriñ Abdou Latif Mbacke tudde woon na itim nag sëriñ Abdou Latif Mbacke doom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu munta lim nag ci yoonu murit mbooloo mu takk moomu nag ñu munta lim nag ci yoonu murit te jikkoy sëriñ Abdou Latif Mbacke nag doyoon leen ba tax itam nag daa seen doom nag di ko jébbal sëriñ Latif Mbacke wala ñu fob seen doom nag di ko tudd sëriñ Abdou Latif Mbacke wala nag ñuy seeti sëriñ Abdou Latif Mbacke nag saa ne nag ngir jikkoom loola itam nag tax na taalibeem bu ñuy wax Baye Ousmane Ndiaye defal na ko nag ay way yu yaatoo yaatu tënkal ñu nag jikkooy sëriñ Abdou Latif Mbacke ci mu meloon ca baax ga yiw ga ca yaatu ga nag ak tabe ga ak doomu Mammoor Jaara Mbacke nag bi mu doon ak njariñ nag lu mu amaloon nag askan wi loolu itam nag tax na nag Baye Ousmane Ndiaye def ci nag way yu yaatoo yaatu nag jagleel ko nag sëriñ Abdou Latif Mbacke ñu teewlu ko ku am ku mel ni kii nu waxate maandu na gëm na yàlla am na karaama làqi ngërëm durus keroog qiyaama ku mën a diis la mbakki tey wayaflu di jaam rabbul xarsi tey wakkirlu cheikh abdu mooy turam wajur wa mam moor moom soxna jaara ña ko topp roy moor tafam awak fa cheikh yaaw soree na la def ba ni mu xëyee dem hajjana cheikh abdu ay mbiram mooy jaamu yàlla xam na farihatu ragal nit yàlla déglooti leen ma wax jikoy cheikh abdu li ci xam ngir yàlla naw naa xabdu ni mu yëgee nit ni la xëree ji aw nit day faji xaaja xetlee ci gépp wet du leb ci banque tiis du tax mu jekki waa mbàkki ràññee noon ko ci moo teg ci farataak sunna la teg ay tànkam sopp sëriñ Tuubaa di xeeñ ci yoonam ak taalibeem amul ci yoonu mbàkke Seex Ibra Faal la roy juddoo fi mbàkk doo gis meram doo ko gisaat réewul daawul xëccoo xuloo ko xeex te ragalul ci waa karabul xar si may kun fayekoon te may sëriñ Tuubaa tax mu raw ndaw teral na mag bile sëriñ wallaahi am turam wa moo di ak ñeewante mooy lam làmboo laaj da koy lijjanti luy saayate fu mu ko yégee jóg na taxaw ndéem day lu neex yàlla li lee ko taxaraw déet moo di jiital kenn ngir ab am am gannaawal kenn ngir ak ñàkkam bu doon desal kenn xusmaan ak tilimam du ñëw mu fab ko di ko def nay doomam du fecc wëllëre du dog ak mbokk du denc ci banque xalal hit mukk xam na te xàmmee gore maandu ci fànni xam-xam yi du koy jamooju islam ji moom xanaa da xandaale lu suturaale limaanam ak lisaanam ak lislaamam bi jaago yokku ko te yër na taaram moo am ridan wa rahmatan wa baraka moo di borom karamatan wa daraja abdul latif la yàlla tànn ful ko ku nara neexle saxal ak tey gëm ko moo di borom ngërëm lu yàlla jiital kum woo nga gàntal seytaane la jiital am na ngërëm lu tiitaroo ko puukare boole yar ak teggin tere Cheikh Abdou noo ngi nii fi yow tayraamu yowmal xiyaam yaa nuy fegal malaamu taggale noo gàcce yi ak saytaane taqale noo gëm la bu wér am diine am daraja teggin am taraanga yaa nuy fegal tey ak xalëg yaraanga yaakaar nañ la ñu lay raamu yowmal xiyaam fegal nu malaamu ku noonu Cheikh Abdou Latif doo baaxle tey ak xalëg foo mën a jëm doo jagle tuuti manoon la mbàkke yow amooy bañ ñaanoonu woon yónneen ba rekk lay fañ ma jébbulooti mbàkke tey dénkaane saa bopp mbàkke say bopp mukk doo seetaane may baalu xaq mbakke tey taxawlu ci tuub di jéggulu ki woyefal te sax ci ñaan faww tamit buur yàlla subhaanahu xassa wa nihma jàll guddal fanam wéral cëram dolli na ko yàlla xàggale lu dolli diina rekk mooy mbiram yile te aar ko aarit ñoñam ak njabootam musal ñoñam dolli njukkal ay mbootam amina amina bi jaahi ahmada wa jaahi xaadimu rasul sawil ngoda baal ma xaq dama doon barkeelu ñawi xel xóotle ko nañ ma feelu man mii way jëru maa seelu ci may way ko jor bu leen tanxamlu yéena ma tax di way ne am mab xam-xam te jëngu ma tayit du bëggu am am yàlla nan ma baal mboolem lu ñaaw ci way wi lu ci rafet ñu xëy fulal ma yool wi jikkoy sëriñ Abdou Latif Mbacke moomu ñu sëñ Ousmane Ndiaye nag doon nettali tax na itam nag ñu takkoo takku nag ci yoonu murit nag tudde nañ ko doom moom sëriñ Abdou Latif Mbacke ci biir nag ñu ko tudde doom ñu mën cee ràññee nag Cheikh Mourtada Mbacke ibnu Xaadim Rasul tudde na nag sëriñ Abdou Latif Mbacke doom sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar Mbacke moom Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke xaadim rasuul tudde na sëriñ Abdou Latif Mbacke doom sëriñ Abdou Lakram Mbacke moom sëriñ Afia Mbacke tudde na sëriñ Abdou Latif Mbacke doom sëriñ Mbacke Assu moom sëriñ Moodu Mamoun Mbacke tudde na sëriñ Abdou Latif Mbacke doom sëriñ Moustapha Mbacke Beto tudde na sëriñ Abdou Latif Mbacke doom sëriñ Basiiru Mbacke Saam tudde na sëriñ Abdou Latif Mbacke doom sëriñ Saam Mbacke Assu Lo tudde na sëriñ Abdou Latif Mbacke doom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu tudde sëriñ Abdou Latif Mbacke doom waa Mbaakool itam ñu ci baree baree baree baree bare nag ku ci am doom ju góor nag sa xel nag daana dem nag ngir nga tudde ko nag sëriñ Abdou Latif Mbacke moo tax soo demee ci suufu su Mbackool bari na nag ñu fa sant Silla te tudd Abdou Latif wala ñu fa sant Jaxate nag te tudd Abdou Latif wala Touré itim nag te tudd Abdou Latif ñu ciy bare bare bare nag doomu Maam Moor Jaara Mbacke bii nag lañ leen tuddee ndax kat jikkoom lañ soxla woon seeni doom am ko mu nekkin nag ku yéeme ku bëgg itim nag waajuram wa Maam Moor Jaara ba tax na lii ñu tudde màggalug Maam Moor Jaara gi lépp loo xam ne nii moom moo ci ajoo woon nag ci wàllu njàngum alxuraanul karim sëñ Abdou diirub lu mu fi nekk nag mbooleem jàngkatu kaamili yi suñ masaa jàng kaamil na ngir màggalug Maam Mor Jaara gi lépp luñ leen daa weexale sëriñ Abdou Latif nag moo ko sosoo woon ba tey na ci liggéeyub sëriñ Abdou Latif doomu Maam Jaara Mbacke yu jigéen yi muy bintu Maam Mor Jaara Mbacke yi moo xam nag ñi fi nekkoon ak sëriñ Abdou Latif moo xam nag ñi jiitu woon sëriñ Abdou Latif Mbacke saa bu masaa bay nag ba nawet bi jeexa buntu kër bintu Maam Mor Jaara Mbacke yépp daana fa yóbbu nag ñaari saakuy pepp njabootug maam moor jaara kat moo fi seen càmmiñ wala bokk na nag ci seen càmmiñ yi njabootug maam jaara mbàkke gu jigéen googu kii nekkoon nag taawu maam moor jaara mbàkke di soxna faati kandi mbàkke bintu maam moor jaara mbàkke ko amoon ak jaxasoo la nag ak rakkam ji nag di sëriñ abdou latif ba tax na sëriñ abdou mbakke moo ko féete woon wala sëriñ abdou latif mbàkke nag moo ko defoon ab jigéen ba tax na itim nag tudde na ko doom soxna faati kandi mbàkke moom sëriñ abdou latif mbàkke fi te magam jigéenam nag lu ko tudde muy soxna faati kandi Mbacke bintu Maam Moor Jaara Serigne Abdou Latif wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di saam ba nim génnee àdduna nag ci atum 1994 ba tax na saam googu itam nag def na fa lu takkoo takku ginnaaw bu mu fa taxawalee daaray alxuraanul karim di yar di jàng ak di jàngale taxawal fa itam nag daaray tarbiya di tarbiya nag ñi koy yaakaar ngir xaadim rasuul saam googu itam nag mbooleem njabootug yoonu murit gi fekk nañ ko nag ci dëkk boobu nag di saam ndax j Serigne Abdou Latif Mbacke saam googu itam nag defaraat na nag ci kër Maam jaaro googu nag la dëkkoon ba ni mu génnee àdduna pénc ma ñuy wax péncum saamitim nag defaroon na fa jàkka ngir mu nekk nag bërëb nag bu ñuy jaamoo suñ boroom ci jàkka jooju mu fa defoon nag ak pénc ma foofu sax lañ ko jébbal boroomam ginnaaw bu mu génnee àdduna sëriñ Abdou Latif Mbàkke nag mi ngi génn àdduna ci feebar bu ko tëral bisub dibéer benn fan nag ci weeru rajab ci atum 1415 nag ci gàddaay gi dibéer benn fanub rajab ci atum 1415 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy dimanche 4 décembre 1994 dimanche 4 décembre 1994 1994 ci hôpital nag bu ndaamaatu ci feebar nag bu ko tëraloon ñu yëgal ko nag ki fi nekkoon xalifab xaadim rasuul di sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke lañ ko yëgal itam nag ki toog toogaayu waajuram di Mamor Diarra di sëriñ Mahmoud Mbacke moom Mamor Diarra Cheikh Mourtada Mbacke ibnu sëriñ Touba xaadim rasuul moo ko jullee nag ñu jébbal ko boroomam ci dëkk waajuram boobu nag di saam ci pénc moomu nag mu fa amaloon foofu nag lañ ko jébbal boroomam ci teewaayu nag xam-xam defal na ko nag am marché bu yaatoo yaatu sax ci kàllaam ak arab soo delloo nag ci marché bi sëriñ Moustapha Dieng nag defal sëriñ Abdou Latif Mbacke moom Mamor Diarra ci ginnaaw bu mu ñu dëddoo ma ngay wax ne nag yow mi bëgg fàttaliku ki nga xam ne nii nag moo nekkoon nag njariñul doomu aadama yi muy borom jikko nag ju sell ja nekkoon itim nag ko tabe tabeek sëriñ Abdou Latif Mbacke nag sëriñ Moustapha Dieng nag mi ngi koy wax nag ci biir marché bi di ñu wax ne nag waaye ñàkk ñi daanañ seeti nag sëriñ Abdou Latif Mbacke te saa buñ ko masaa seeti nag lépp luñ soxla woon nag ci am am daanañ ko am ndax ku leen ko daa jox la mu ñuy xamal ne nag jëmm jooju nag di sëriñ Abdou Latif Mbacke ab loxoom itam banku wud woon loxoom itam nag loxo bu tàllalu nag la yoroon kon nag ku masaa ñëw nag soo tàllalee mu teg ci yow dara ndax yaakaar ji nga am nag ci moom mi ngi xamal ne nag jikko jooju nag sëriñ Abdou Latif yoroon képp koo xam ne nag yaa ngi koy sikki sàkka dangaa dawul toog nag ci ronam sëriñ Moustapha Dieng nag ba tey itam nag mu ngi ñuy xamal ci marsiya bi di ñu wax ne nag sëriñ Abdou Latif Mbacke nag jaamukatu suñ boroom la woon ku sell la woon murit saa dex itam nag la woon ku xamoon àqi dëkkandoo itam nag la woon ba tax na itam nag daana nemmeeku nag saa su ne nag ay dëkkandoom moo xam dëkkandoom yi jege moo xam itam dëkkandoom yi nag yu sori mi ngi xamal ba tey itam nag ne sëriñ Abdou Latif Mbàkke nag ku lewetoon la képp nag ku dëkk saam nag mbégte ñeel na la ci dëkk nag goo dëkkandoog sëriñ Abdou Latif Mbàkke ndax jikkoy sëriñ Abdou Latif Mbàkke nag du mu meloo woon wala jikkoy sëriñ Abdou Latif Mbàkke nag ju mu dëkkoo woon mi ngi ñuy xamal nag kàttan nag gu sëriñ Abdou Latif Mbàkke yoroon te kàttan googu mu yoroon na foo ko masaa fekk nag day ree ba tey nag mi ngi ñuy wax ne nag yow mi doon dégg sëriñ Abdou Latif Mbàkke nag te mënoo koo xam soo koy laaj nag mën ne mooy ki nga xam ne nii amoon na kàttan yoon itam xol yaatu te nekkit nag ku tabe mu ne nag mooy ki nga xam ne nii daal moo fa bon dundam gépp daal jeexaloon ko nag ci doomu aadama yi ngir nag di jariñ lu yaatoo yaatu daal la sëriñ Moustapha wax ci marché ya nag bi mu defal nag sëriñ Abdou Latif Mbacke nag ginnaaw bu fi sëriñ Abdou Latif Mbacke ko ñu teewlu ko bismillahi rahmaani rahim fa kayfa asalu an zikrihi kulla yawmin fi nahaarin wa fi layaalin suudin shalji qalbi mahmudun shahin wa sahni wa sallim كفه كفقد البريد كفه مصرف يهين دواما فاسأل الحاضرين والوفود إن هذا النعم شيخا كريما عالما عابدا صدق المريد فللشيخ معاملة حسان في جواري وأهله وشريد تعطوف وعلمه أعجل أحناف قد ملانا تاريخ ورشيد ولنا البشر أهل الشام جميعا بجواري ولي فقد الفريد وشريعا بلا وافعة وجه وصدوقا عسين الخلق تليد مغفرات من إله دواما كشعاب على العبيب سديد يا سائلي من هو فخر الشام إن الولي الهالي المقام منهم روح أفناه في نفس الورى شتان ما بين قريب وسرى كان مريدا فارغا سنيا مناصيا مثاليا شيخيا وهم روح أفناه في القرآن وفي علوم الشرح والإحسان علم الحقيقة مع الشريعة ميزانه في زهيد برمية إن التقى قانت وساهد ومخلص وسالك وحافد عالم وعامل نحرير ذو أدب وحرمة شمير والله لا يقدم تقصير عن واجبات الدين وتعمير ولم يديح عمره ولم يكن يميل عن نهج النبي ولم يحمل lam yakun maashiyan ilal xaraamin mudata xumruhu wala alaamin kaana mubarran amin almalaam bu mën di nee na teew min xam-xam jasaahu rabbu naasi xayri wa ula maqaamaatu hindal ay xalifaam nag nii la tëdde kam faye nag waajuróomam wa di sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul di sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Abdou Latif moo ko wuutu nag ci atum 1994 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñu borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuróom wii góor ak jigéen sëriñ Abdou Latif Mbàkke nag am na bis nag buñ koy fàttaliku muy juróom-ñetti fan nag ci weeru korité bis boobu nag moom moo ko doon màggalal boppam sababub màggal gi nag sëriñ Abdou Latif Mbàkke nag doon na sant nag suñu boroom ci xéewal gi mu ko defal nag def ko ab jullit di santaale nag ñaari waajuróomam yi di maam Moor Jaara ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci boole nag guñ ko boole nag ci seen bopp loolu nag la defoon ak cant nag daa ko sant nag juróom-ñetti yu ne nag ci weeru korité ginnaaw bu mu fi bàyyikoo nag la njaboot gi wéyal di Mbàkke ci sant googu nag mu doon sant nag ay waajuram ci boole nag guñ ko boole nag ci seen bopp loolu moo waral nag ginnaaw bu mu fi bàyyi ko nag njaboot gi nag wéyal bis boobu nag di santale nag seen waajur wa ci sant nag gum daa sant nag waajuramam yi kon loolu nag mooy màggaluk sëriñ Abdou Latif Mbàkke ñu koy amale nag ci dëkk bii nag mu féete woon di dëkku waajuram di saam màggal gi itam nag màggaluk bëccëg la sëriñ Jiili mbakke moom sëriñ Abdou Latif Mbàkke nag moo yore organisation màggal gi ci ndigalul magam sëriñ Cheikh Mbàkke Lappe moom sëriñ Abdou Latif Mbàkke Gueye Abdoul Latif di doomu Maam Moor Jaara yàlla na suñ boroom nag yokk ay leeram nag te taas ñu ci barkeem liir jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ boroom saafara ci dara jëy Abdoul Latif amiin Abdoul Latif amiin Abdoul Latif